Moussa Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM. maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa Rewmi FM di nuyu seeni auditeur auditeurs seen i internautes seen i ñëpp ñoo xam ne ñu ngi leen di suivre à travers le monde. nga yor kàddu bokk gis-gis tey jii euh, mu mel ni bokk gis-gis investir nañu ki nga xam ne mooy seen leader di Pape euh, Diop ngir nag mu jongante euh, ci chaise u jaraaf bu Ndakaaru wax wax wax ñu ci un lu leer. waaw li nga wax de du lépp foowul waaye baax na ñu leeral. Mhm. ñi investir ñi proposer président Pape Diop mooy jigéenu Ndakaar. Mhm. ñoo ci réunion bu amoon demb ca permanence bu fédération bu Dakar bi nga xam ne moom moo ëmb fukki section yi ak juróom-ñeent yi nekk département de Dakar jigéen ñi jóg ñoom daal fi réew mi toll ak Ndakaar ni mu tëddee. Mhm. dañoo bëggoon ñu proposé président Pape Diop pour mu nekk candidat. ci opposition bi ci élection wu jaraaf yi ngay wax ni joŋante yi xam ne ni moo war ñëw fii janvier. Mhm. ñooñu nag euh, assemblée bi nangul leen ko kon ci gàttal waa département de Dakar fédération bu bokk gis-gis bi ëmb fukki ak juróom-ñeent section yi. Mhm. ñoom ñoo proposé Pape Diop pour mu nekk seen candidat seen candidat ci élection jaraafu Ndakaaru yi nga xam ne ni moo war a ñëw ñu teg ci itam ni bu ñu sañoon. Mhm. <coughs> buñ ciy dem opposition bi yëpp ñooy booloo moo xam ci Ndakaaru moo xam fépp ci Sénégal ndax danoo jàpp ni élection yi du élection wu maire rek waaye dafa at suñu bëggee tere ñii forcé def troisième mandat wala jéem nax sul noonu foog ñu commencé boole doole yi ci local yi léegi commencé koo jël su ko defee danañ am taxawaay bi ci mat ngir mën a am jàmmarloo bi war ngir gaañu bañ a forcé bu ñu àggee 2024. kon bu ma ngay wax procédure wala processus euh, investir euh, Pape euh, Diop Ndakaaru rek lay yem du ngeen ko soumettre yeneen entité yi nekk ci diwaan bi. nono non xam nga comme élection local moom. Mm. mbiru gox wax goxaat la. Mm-hmm. li tax ñu ni Pape Diop baax na dina am mooy président wu parti bi. Mhm. waaye dafa nekk aussi responsable fii ci Dakar base am nekk fële Fass Gueule Tapée Colobane comme élection yi nag département la jëm par élégance nag suñ demee bureau politique ak secrétaire mhm. opposition bi mel jàpp nañ ni moom na doon ci mën a dajale ñëpp fii ci Ndakaaru. ñu mhm. àndandoo Ndakaaru téye ko ko a euh, waaye par élégance dinaa ko yëgal bureau politique bi. dinaa ko yëgal secrétariat national ñoom ñu xamee ko noonu ñu déglu nag président Pape Diop mu lettuñu mbaa mu firiñu ci loolu nga xam ne nii waa département de Dakar neen nañ ko ko yéeneel ko opposition bi yéeneel ko réew mi tam ndax nag lu waaye xamadi xamadi xam Pape Diop ak Ndakaaru euh, ngeen fas yéene ko euh, proposé lii di opposition bi euh, ndax jàpp ngeen ne li dina en dina antu ñëpp dinañ ci ànd wala mu gën a tas lii di opposition bi waaw xam nga def lépp ñëpp ànd ci yàlla mi ko mën sa defu ko ndax gis nga am na ñoo xam ne gëm nañ yàlla am nañu gëmul yàlla mm-hmm. te bu ko neexoon nag ñëpp bokkandoo gëmandoo ko ñun jaam yi ak suñuy pexe suñuy yéene rek lañ am o mm-hmm. jàpp rek ni bi ñu waxtaanee ak faami li ñu faami wax rek mu xaw a dal suñu xel itam mm-hmm. te yenu maanaa mooy ni euh, fi mu en deux mille dix neuf looluy dëgg itam ba tax na kon li ñuy andi mooy waxtaan ndax ay na yëwén bu fekkee yi bëgg dañoo bari day baax ñu toog waxtaanee ko xool ki ja ki ñu jàpp ni mën naa dajale ñëpp ñu àndandoo wuut ci àndum nawle bu boobaa mu door am lii rek a tax ñu xalaat ko bëgg yomb na ndax ku nekk am na loo bëgg ku nekk am na noo ko ñu bokkul fu ñu bokkul lu ñuy doxee suñu waree daje am fu ñu baax ku nekk am loo bàyyi ci làcc gi su ko defee ñu dajale ko muy njëriñu askan wi ñu jëm cee jublu lii rek képp donc kese moo ñu ci dugal. yéen ngeen proposé euh, kii di Pape Diop bu bokk gis-gis Barthélémy Dias samp ndëndam moom it pour Ndakaaru euh, te mën nañu nañoo wax ne mbir yi jeexagul ndax fii léegi ñuy àgg euh, ca wot wi euh, dinañ déggaat yeneen tur euh, tey ndax guerre des ambitions yooyu le du gën a xaajale opposition bi. waa dama ni xam nga loolu mooy <coughs> charme démocratie baal ma charme démocratie mooy ku bëgg waxal ni bëgg nga ma ci jaar di nuyu suma xarit suma doomu ndey Barthélemy Diaz mm. di jàmbaari fakk tëdd fii ci Ndakaaru itam di def liggéey bu mucc ay fruit de l'opposition mm-hmm. waaye dafa am xam ne buñ fa àggee dootul nekkati wala yëfi yow yëfi mbooloo la dootul nekkati mbiru camp wala mbiru bële camp day nekk mbiru opposition bi sañ nañ nag ba fi ñuy àgg ku nekk ni man bëgg na ku bëgg ñu jël ko waaye après ñi bëgg ñëpp ñu dajale leen xool ki nga xam ni moo mën a dajale ñëpp su wootee ñëpp ànd ceeg moom moom itam mu tëddee njaaxaanee ñu àndi àndi nawle moo tax c'est bien que chacun décline ku nekk wax li mu bëgg waaye gëm naa ne buñ ca àggee ca war a tànn ñin ku nekk nag day fàtt jëmmam ñu xool li ñor Ndakaaru li nga xam ne ni mooy njariñ opposition bi li nga xam ne ni mooy njëriñu euh, réew mi ñu jëfee ko kon jàpp naa ne buñ ci àggee suñu deful la ñu daloon ca élection législative bi passé ku nekk bëgg demal boppam ba fi ñu mujjee mooy gis nga ko li ñu am ay pepp la ay pepp jàpp naa ne nag bii paa ku nekk dina fàtte boppam ñu jiital ndakaaru jiital intérêt Sénégal jiital intérêt opposition bi bu boobaa dinañ mën a am ndam lu mucc ay ci Sénégal waaye mu bañ yem rek ci ndakaaru fépp ci Sénégal ñëpp doxante loxo ñu ànd def ay moo gën su mënul ñu mën a ànd rek ànd waaye am nañu yaakaar lool ñu danañ gañe su ñu àndul nag suñu yaakaar dana néew lool pour ñu mën a yow am nga yaakaar ni intérêt général euh, mën naa tax ba ñu yaakaar wala ñu jàpp ne opposition bi mën naa am candidature unique waaw loolu moom yaakaar boobu moom dañ si d'ailleurs looloy looloy jullit waaye ñun tam dañ ku ndobin rey sa maam foo gisee lu ñuul daw mm-hmm. defe naa ne ñu nekk force yi ëpp doole ci opposition bi nekk fii ci Ndakaaru suñu seetloo bu xamoon bu ñu àndoon ci législative bi ku ne ci ñun la nga am mënoon naa gën a yokk te itam nag suñu góor gu mag bi Ablaye Wade digaloon nañu ko jëfeewuñu ko waaye jàpp naa ni bii pas ñun ñëpp nekk gis nga conséquences yi yi nga xam ne ni moo fi am suñu boolee suñuy doole am doole suñ ko boolewul ku jàpp ni yow kese mën nga am doole nax nga sa bopp moo tax yaakaar gi dëgg la ndax yàggul deux mille dix ci législative bi ñàkk booloo moo ñu teg li fi xew yëpp suñu booloo woon yëpp mënoon nañ ko weesu ma jàpp rek ni nit ñi danañ fàtte seen i jëmm fàtte personne ñu jiitale intérêt mbooloo ñu jëm ci gars ñu tànn ko ñu ànd ànd nawle ngir mën a am victoire bu mucc ayib. Moussa Diakhaté des ci euh, Ndakaaru wax ci li nga xam ne euh, actualité la bu yàggul dégg nañu euh, pencum bu ñu wax ne ñoom bu ñu sañoon seen i doom daal di yor lii di mairie bu Ndakaaru ndax ndakaar dafa am ñu ko moom noo jàngatee boobu les propositions. waaw mani mani wax ji sa bu yemoon ci biir néeg rek wala wax ko ñenn ñi mën naa am du jóor tuure gi mu jur ndax su yàlla defee ñoom ñu njabootee ñëpp ci lébu gi am na ñoo xam ne ànduñu ak li ñu wax te yëg naa ko wax nañ ma ko ndaxitam itam euh, genn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko mm-hmm. samay doom seen i deret jaxasoo naag tereetu lébu gi ndax sama soxna yaayam lébu la donc ma jàpp ni moom it lébu la ak keneen ak keneen ak keneen ñoom gisee ni nii kilifa yooyu waxee ma jàpp rek ni xëy de communication la ndax euh, Alaaji Moussa Samb imam sama kàll dama yaakaar ne xëy na daa añuloon grand sëriñ itam jàpp naa ni xëy na moom li mu far politiquement tax itam loolu kenn du ko wettable li mu nekk ci camp président Macky Sall xëy na moo tax mu tànnee tànn ñu ànd ak Macky Sall waaye lébu gi bari na ñu nekkul ci pouvoir bi ba tax na kàddu goo xam ne dañ koy të dañ koy wax mu mën a féewale askan mhm. wala consort yi war nañ ko muytu rawatina su jógee ci kilifa yoo xam ne bu daay amee ñoo war a jóg fay ko ma jàpp rek ni erreur de communication la yu ñu war a muytu la moo xam ci gi moo xam ci tukulóor yi moo xam ci séeréer si moo xam ci wolof bi fépp kàddu jógul nattukaay bi doon mbiru xeet wala waaso lu ñu war a xeex war a la lu ñu war la ndax réew mi nag dafa laaj bal dafa laaj juboo dafa laaj booloo ñoom dañ leen ci xaar en tant que imam en tant que grand sëriñ ndax kat ñoom ñoo nañu sax lébu gi ci xam ci yaatoyam te ñëpp xam ko dem nañ ba naan dañuy créé treizième peñ pour jagleel ko ñi nga xam ne nii dañoo fekk baax ni ci eh, Ndakaaru wala baax fekk leen fi ndax nekk bi mu nekk ak dëkkin ba tax na jàpp naa ne foo yëgatee kàddu buy boddi su boobaa nga yàq sa sa sa di nga yàq sa taxawaay te mën naa tasaare sa njaboot donc lu mat a moytu la ñu leen ciy invité bu ëllëgee yu mel noonu ñoom suñu ay kilifa lañ mënuñ am lu leen ëpp waaye ñu moytu di waxee noonu ndax mën naa féewale njaboot gi. waxtaanee euh, tournée économique bu njiitu réew mi doxantu nemmeeku ci bët gànnaaru réew mi euh, nan nga ko jàngatee. waaw njàngat li moom defe naa ni nee na fang damay wax ni président jóg di wër réew mi. di xool liggéey yu mu def wala yu mu defoon wala yu muy waaj a def dara aayu ci li ci aay kay mooy mobilisation yi ñu gis te moom président mu waxoon ñu ci làmmiñu boppam muytu leen ci daje yu ñàkk solo yi ndax mbas maa ngi ci jógewu li mu wax nag ak li muy jëfee dafa waroo looloo tax itam ñaare su waxee nit ñi duñ ko fu laal lool muy lu lu regrettable ndax bu ñu sañoon itam bu nit ñi di jóg ñëppay jógandoo di sàccandoo di dóorandoo surtout bu dee intérêt wu Sénégal la waaye bu fekkee ne la ñuy wax day waroog la ñuy jëf dina jafe loolu nit ñi ndaw leen ci lañ bëgg jëf loolu lay waral léeg-léeg suñu waxoo ñaare nit ñi du ñu addu wala bu ñuy addu duñu addoo ñoom ni ko bëggee li xew rek itam nag politique la ndax yéen xam ngeen ni barki Dembo Ndiaye am na loo xew ci réew mi ñu koy naqarul lool na mm. muy violence ñu ko gis toj yeeg yàq yeeg yooyu yaakaar naa ni day gàkkal deru Sénégal te képp kuy doomu Sénégal amoo ci waroo cee am fierté waroo cee ànd waaye bu fekkee nii la bëgg dalaatee xelam ak ay ñoñam maanaam fu mu dem ñu dugal ay nit ndakaaru yeb leen di leen fay juróomi junni waxuma ko de ci rajo bi laa dégg ñu koy wax wóoruma itam ni am na waaye dama ni bu dee loolu la mu ngi nax boppam moom itam daa mel ni goney Sénégal tontu nañ ko ndax ca keroog ba muy def discours dani moom du gis lu xonk waaye waxuma ne gisul lu xonk waaye mu ngi dund lu xonk il ne voit pas le rouge il est de vivre le rouge loolu nag li koy wanal mooy askan wi kontaanu ñu au lieu de wut ay nervi ñu leen di door a ko saaga déglu leen ba fexe faj seen soxla yaakaar naa ni solution bi ci ëpp solo que di jaay doole que di buuxante ndax nguur bu dul nguuru yàlla billaahi day jeex ñu gis ci réseaux sociaux yi ak it ci ay taskatu xibaar ñi nga xam ne ñoo jot a euh, ànd ak euh, ñoom ci tournée bi fësal muy ay nervi yi nga xam ne depuis quelque temps coow laa ngi gën a bëri ñu ngi leen di gis euh, tey jii nan nga jàngatee phénomène boobu. waaw phénomène boobu phénomène la bu ñuy ñaawlu bu ñuy ñaawlu surtout su jógee ci ñi nga xam ni ñoom ñoo waroon ko xeex ko suñ koy def day mooy permettre ñeneen itam wuti seen i nerve di payo waaye violence bi ni mu mel Sénégal war naa interpeller kenn ku nekk ci ñu kes na lool ci arène politique waaye mu ngi ca ba ca classe école ba mu ngi ca ba ca koñ ba mu ngi ci ba ca kër ya loolu nag day interpeller ñëpp sociologue yeeg sénégalais yeeg même waxin wi amul teggin même waxin amatul yar amatul worma kuy dugg ci classe fekk sa mën koo xoj fa la violence mën a yem. Hmm. waaye nag li koy waral mooy ñi nga xam ne ñoo waroon doon royukaay waroon jëfe ñu leen di roy. su fekkee ni ñoom dañuy wujjante su ku ëpp garde corps ku ëpp ay bras ay ay bras ku jóg ma dóor la fu may dem génne ay nit ay nër bi gros bras surtout dafay yàggu hmm. manifestation yi amee fi ñu artu kenn jogul lii day andi jéeya te réew mu tàkk injustice bu nit ñi di bàyyi di law jaay doole bu kenn waxul moom moo koy andi ñuy interpellé waat encore une fois le président de la république ni ko nervi yooyu accompagner ay éléments am ci biir duñuy taaral démocratie duñu koy màggal moom chef de l'état ndax kat ñoom ñoo war a xeex li ni mel suñ ko jëfee dana pousse ñeneen itam ñu révolté wu nekk ci frustration jàmmaarloog ñoom te day jur violence te violence am jàmm du fa am violence am développement du fa am te su boobaa Sénégal rek donc kott ñu nekk ci sixième mois li des ngir at mi jeex euh, juróom benn weer la tamit donc li ci des euh, ngir ñu dem ci local yi bëriwul tey ji euh, ba tey déggaguñu fenn fu ñu wax révision fichier bi wala sax liste yi noo ko jàngate ñi ma ko jàngatee mooy jaaxle ni ñëpp waaye man yàlla daf ma bindee nag ñaare du ma wax lu ma xamul wala du ma wax lu ma yàlla def na nekkuma ca commission ba donte Abdou Salam Bass directeur des élections de Bokk Gis Gis mu nga fa moom moom moo ñu jox ay information mhm. waaye ba fii ñuy demee kenn xamagul lan lañ tënk lan lañ jàpp lan la ñuy dogal ak lan la ñuy bàyyi mhm. ñu ngi gis daal mu ngi seppi di rocc ay ndànk-ndànk di def ay eh, départementalisation par di toj fii par mu mel ni daal dafa nekk ci yoonu defaru ndax jekkoogul ngir bu jekkoo pour mën a dal ci kaw nit ñi lenn rek lay wax li ñu repousser élection yëpp suñu génnee ci dialogue bi te amuñu un consensus fort ñu dem élection te kenn bañ a andi ngañ su boobaa perte nañ tardel nañ Sénégal yi tardeel réew mi te boobaa itam nañ ko nangu assumer ni pouvoir bi amee responsabilité noonu la opposition bi toogee ci dialogue bi amee responsabilité ndax itam nag yàgg na lool ñaar ba jëb bu ngi dugg ñetti at ñu pousse ay élection yu waroon am c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal. laajte ñu la ko sànq ana euh, seen leader di Pape Diop. waaw président Pape Diop mu ngi fi. koo gëj a dégg. waaw xam nga bu pënd bu bu wax pare hmm. waxandoo lu mata a moytu la su dee bu nga kilifa nga. su fekkee baax leader ñu leen di dégg léeg-léeg ci actualité yi nga xam am nga ku nekk ak hmm. président Pape Diop yàlla moo ko nattoo du nitu wax nitu jëf la. dans la vie de tous les jours. c' est quelqu'un qui parle peu et qui agit beaucoup. da koy xool ca turo ca sëriñam ba. sëñ Abdou Khadre. Hmm. moom la jël melokaan. président Pape Diop moom bu fekkee nii fal wax. wax rek mooy tax a falu jàpp naa ne du gaaw a falu waaye bu dee jëf bu dee yiw bu dox jàmm bu dee dox mbok ci lay dox réew mi nag fan yi li nga dégg taxarante saagante jiiñante dóorante ku ciy xaar président Pape Diop amaana ni doo gaawoo ko dégg ndax doxul ci bës bokk gis-gis doxul ci bës su waxu jotee danañ war a wax lañ war a wax danañ ko war a wax ak teggin ak worma ndax loolu lañ gëm ni valeur moo war a nekk laytaayu discours politique parce que sinon ñu jëm bu baax ci réew mi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Moussa Diakhaté. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci invitation bi. merci beaucoup.